yi des ñu ngi mbaaw daañu leen libéré demain incha allah avant 2021 bëgg na 362 yëpp ne ci tali bi pour mën a remplacer gis ngeen yi si kënglong yi nga xaay mi ngi fi xar kanam taxul mu rafet loolu dañu war a changé kar xanu afti ndax clients yi war nañu respecté aussi mais toog leen bëgg jum renouvellement de renouvellement bu àggee pour kënglong yi ak afti yi nga xaay jëkkoon nañ fee ñëw 2005 ba léegi day 15 ans te banque ans a changé incha allah danañ ko changé. benn le programme de nous avons joxe ay bus Madame fukki bus ak juróom ci programme boo xam ni euh, programme rëy la programme boobu mi ngi depuis 2005 mais depuis 2012 Madame Diego bi nga président de la république def na ci ci ay le globalement programme bi dana tourner autour de euh, Jérôme euh, juróom fukki milliards ak mais sur les Jérôme fukki milliards ak Jérôme, mën naa wax milliards yi. depuis 2012 la état bi def à travers ben crédit bi nga xamni mom la amoon donc mu nek jéego am solo programme bi manam globalement fii léegi fin d'année bi ñi nek da fay toll ci ñaari junne bis ak juróom à peu près su lee ñaari junne ak juróom yi ñaari junne yi taxaw donc acteur yi jot nañ ko mu nek lu am solo fii léegi fin d'année bu soobee suñu borom da na li na bolé wu ma ci sax yenen ñen fukki ñen ñen téméri ak juróom yoo xam ñu ngi dans les régions mu nekk programme bu am solo boo xam état bi moo ko jagleel les acteurs acteurs yoo xam ñoo nekk autour des GIE AFTU dama ciy profité di remercier bu baax GIE AFTU ci seen taxawaay bi nga xam ne am nañ ko pour que li dox transport Dakar nag gis nañu Dakar dafa nekk dëkk bu rëy xëy na euh, maanaam bu ma jëlee les bus AFTU bus AFTU yi xëy na des na lu bëri moo tax xëy na ñuy gis léeg-léeg ay oto yoo xam ni maanaam ay yeneen njëgën jaay ak yeneen car rapide yoo xam ne dañuy jóge ci yeneen régions yi. ñëw di daw ci biir Dakar mais gëm nañu fi léegi fin lu bëri ci yooyu dañu wàññeeku parce que programme bi moo ko moo ko laaj programme bi moo ko indi programme bi nag nga xam ni mën nañoo wax ni ñetti marque bis ñu ngi ci ñu ko jiitu ay les bus Tata mi ngi ci woon les bis King Long tey jii ay bus Ashok Leyland lañ ci indi mu complété ko lu ma ci mën a souligner waat encore mooy bis yëpp Sénégal lañ ko monté au niveau de Senbus C'est dafa nek lo xamni day gëna industrialisation dans ces secteurs là ñu ci les acteurs au niveau de Senbus bu Nous aussi wax ni les transporteurs moy outil de travail la la dañ parce que askan bu dugg laaj ñu dugg ci sécurité ci sécurité dans un confort parce que il faut dans un confort te aussi gëm nani ni les acteurs inok autour de AFTU bu soobee suñu borom daañ ci daañ dans ci taxaw bu baax a donc loolu dafa nekkoon en tout cas message boo xam ni bëggoon naa lancer donc à l'endroit des acteurs di leen wax nag bis yi ñu as une quinze tey mais fii fin d'année au moins ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar dana mottali parce que programme bi moo laaj parce que fii fin d'année il faut que ñu boucler la première phase encore des programmes yi c'est en quatre composantes